dernier réglage. bon géej. dernier réglage laa lay wax de. the final. the final. hey Yako. dernier réglage dernier réglage dernier réglage moom mooy moo gën a rëy ñu am ay ñoom Gucci ay ñoom ñu am ay Samba ak ay Gucci bi am ay naam yu ñëw mool bu mag baa ngi nekk. Euh, nga xamante ni moo di bien état. jamono mool bu mag bi ki mooy mool bu mag bi ah. amul ay food lager ah. ay Gucci bi ne ay Gucci non ay ay twenty thousand la ñuy la ñuy la ñuy espère. mais ñaar. mooy nii de. Voici la partie pomme, de votre... dafa benn Yeah. <laughs> yeah. <laughs> màcc naa fi ice cream bu ne fii màcc naa fi bépp xeetu ice cream maa ngi dëkk bii ñaama maa ñaa dëkk moom mii nañu nii luy xeetu ice cream màcc naa ko sa son yi maa ko yàgg a seex maa ko yàgg a seex maa ko yàgg yëy moom sa son yi yaa ko bàyyi leen sama barke yàlla maa ko moom I want to volunteer different bags. Yeah, I think she, she's right here. Oh, she That is good. Good God, I don't know. She doesn't know. That's how we do it. Man, don't know. Orang peta mana no? Aku kau boleh ring suri dong kau peta kau kau dia. Tapi nak saya dulu ni macam kerau. Mesti kita lalu. Dan saya dah kau nak tutup ni. Jangan. addition bi lan la. mbiru tàngalaawaay bi. ñaar ñaar ku mën ñaar ku mën li ku mën. ku mën na nga def. Yeah, it's uh, ah, 6,160. Yes, let me see that. 6,000. 6,000. 6,000. That's 10 million. 10 million. Man la moo gën jëndal lii. 10 dollars yi. Man la ko jëndal 10 dollars. Let me see. 6,000. Ok. Xaar dama ngi nii di ko compter. 6000 dollars pour alquran karim yàlla ay ni kan machallah yes you want separate maamu bi maamu bi maamu bi moo gis sama maamu bi mën naa moom bi gold bi moo gis moom ko la ndank bi moo gis parce que 5 millions lañ défendre right now na tim bi yëpp ñor ay ay ay par yi la ñuy yor nag tim bi yëpp tim bi yëpp apple la jaspara coach ngi nii apple coach le milliardaire il est devenu milliardaire maintenant lay doxee loxo te naqar de dund la de heure bu la fekkoon bu la fekkoon sookoon. dix mille dollars yi foofu la bu la fekkoon sookoon. nga ngay dawal sare. sama xarit la. bii sax la yor la. ma respecté nag. parce que ba ma respecté lu ma tax ma xeex fii ak yow. ay. waaw waaw waaw. tey lii maa moom lii. tey moo géej. noonu. ñaŋ. ñaŋ. engrais yaa ah, jullite ak bëgg sa bopp fonk sa bopp bu jugee ci yow doonutuloo nit sama maam moo ma jàngal moo ne ba noppi jéppi laay yu ma rokub ma waj ma bab ma rokub ma sapub ma bab ma rokub ma sapub ma waj ma wajataam ala naa ko sambali ngeer donay waaliye bu góor carkate lañ la yeew sa mbay mbayaan yu ma rokub ma waj ma baab ma rokub ma waj ma sapop ma rokub ma waj ma ala gay naa ko sambali ngir baangi oh, dundal dundal ba say may di baawaan bu la sa yaay mayee su la mayee demoo la ko bu la sa baay mayee bu la meree demoo la ko loo liggéey yaa ko moom lu ma rokkub ma wàcc ma sakku ma doog ma balel balel balel ngeen ni moo borom Las Vegas waaw bale waaw bale ñu ne ko bale bi indil ko bala bi indi bala bi bala taxaw bi. xanaa xamuloo ni. bala taxaw bi buur bi mooy maye. dëgg la xanaa yéen xamuloo leen. waaw waaw yàlla buur bi mooy maye. xanaa yéen xamuloo leen. bala taxaw bi yàlla buur bi mooy maye. xanaa yéen xamuloo leen. waaw waaw yàlla buur bi mooy maye. su la yàlla bale xew bale bale waay su la yàlla mayee bale waay bale su la yàlla mayee oh bale bale bale mi ko sa yaay bale bale te nga gërëmi ko sa baay 10 millions francs CFA 10 millions francs CFA 10 millions francs CFA 10000 Bale, bale, bale, bale, bale, bale. sapuma rokuma ruma rokuma sapuma wet ma wet tama ala de ina ko sambali get 10000 Yeah. baleel baleel baleel